ndakaaru xëy tey ci ab poussière bu jéggi dayoo woto yi daal di pënd garab yi kazalika doomu aadama yi nërmirlu ko ci gis mu ngi takk ab masque wala mu fàtt bakkanam ak mouchoir. foog ñu takk masque parce que boo xoolee temps bi nu mu mel la quoi du dara nag c'est pas par rapport ak euh, comme nu gars yi di xalaat di am ci yeneen dëkk yeeg yooyu mais poussière yi dafa baaxul quoi mun na créer ay maladies respiratoires ak yooyu quoi voilà mi ngi noonu loolu kese la. sonal na la parce gis auto yi nuñu mel rek dèjà rek laa né vraiment temps bi neexul quoi et puis brouillard bi nu mu mel nii ma naa jël samay matuwaay. waaw waaw damay xey ni wa wa wa gis nga <laughs> temps bee ma xaw a quoi ok très bonne journée. mu peu poussière bu meuna indi galancor ci ñi am problème respiratoire ki ci mel ni. an kay asthmatique bu bon la kay. nan ngay dundé poussière ci si jamono ji. poussière bi kay instant yi ñëpp ni ñu koy dundé tak ay masque c'est vraiment douloureux daal metti na trop sonal nañu trop asthmatique yi sonal nañu waa daf may sonal guddi gi yooyu yëpp mhm. damay sëkkat sama asthma bi dima daaneel mais bëgg naa jënd masque légui ni parce que lii c'est pas wóorul bett na ma dama yow rek gis poussière bi xamu ni la bett su ma ni la du ma génn bu tey maa ngi nettoyé mu bañ a jeex sonn ba bëgg dee am doomu asthmatique mu ngi nii manul sax xëy jàngi parce que damay ragal xam nga rek bu demee tam mu affaire bi déclenché wu sonn ba bëgg dee boo xëyee fomp say meuble balaa midi mu mel ni dañ fa sotti camion poussière góor gi bu dugg see naan xanaa fii kenn defaru ko sonn nañ moom ma sonn nañ da ngay tëj say fenêtre tëj sa lépp doo xam fa poussière bi di jaar gis nga ma maa ngi nii so so torop sonn torop torop torop loo liggéey liggéeyaat ko soo ba tey gis nga soo ba tey maa ngi woon ci biir moo xam ngay dox wala ngay jëfandikoo ndaamaar poussière bi nekk luy indi jafe-jafe ci bépp doomu aadama poussière bi day xanaa daal moom lu yàlla wàccale rek ñu moytu rek poussière bi rek waaw jëfandikoo ment laatu daal laa ci xam man waaw. est-ce ah, man de li ma ci xam daal mooy daal def attention rek di moytu rek waaw def ndànk-ndànk rek waaw loolu laa ci gis rek xam naa lu yàlla wàcce la daal. waaw maa ngi takk kaska parce que dama xëy gis poussière bu bëri maa lii nag baaxul si pour nga koy noyyi quoi moo tax ma ne xaaral ma jand kii maska parce que booy dawal nii ngelaw bi ak poussière bi nga xam ne yoo xamoo fu mu bayee ko da ngay a gis muy wàcc. nga xëy gis oto yëpp poussière xam nga kon il faut nga jéem a défendre sa bopp daal. des fois sa masque bi yenn saa mu mel ni day centre ne yaa ngi nooyi loo xam ne daanoo ko nooyi quoi. des fois nooy bi sax daf ma koy empêcher laa lay wax ni surtout ak liggéey bi ni da ngay reeba tas wallaay. bale nettoyer saa su ne mujj nag ab beneen liggéey ci ñi yor restaurant ndax jaay lekk dafa war a ànd. c'est sûr que nettoyer nañ c'est sûr que jour de tous les cinq minutes de parce que les gens dafa laaj hygiène. bari poussière euh, parce que poussière bi xamoo lu donc euh, voilà mais suñu client xam du len euh, du len du len dak moté coono jeexagul ndax wa centre qualité de l'air ci ab communiqué ñu ngi wax ni poussière bi dina dem ba le 27 février mu melni kon jël ay matuwaay rek mo ci dess